mu nekk nii situation stable na. Mhm. parce que bi ma lay wootee si suba ci fajar gi jaaxle naa lool. boobu laa koy doog yëg ku nekkul Sénégal moo woo. Mhm. woo ma whatsapp jotuma mu woo ma appel normal jotuma mu woo sama soxna pour mun ma jot pour mun ma yëgal li xew. Mhm. Euh, bu ñu fi jógee ñu dem hôpital donc bu ñu fi première nouvelle bi ñu njëkk am mooy dem nañ hôpital gis nañ médecin colonel bi. am na lu mu teg suñu loxo loolu dal na suñu xel déjà euh, bu loolu weesoo ñu leen di masawu yéen ñi nga xamante ne tiis wi si yéen la dal mais dama naan sax tiis wi si ñun ñëpp la dal may mun a moom nañu bojj ay paaka mais tey Sénégal nañ jàmm parce que on va faire la cest à lii xew nii lu xel bu gën a bon mënu koo xalaat c'est ça la vérité euh, liiraam nag ci ñag bi la jëm yàgg na Binta wax na dëgg. yàgg na ñuy am ay action ñuy menacer ay journalistes ñuy intimider ay journalistes nangam ak nangam. s'attaquer à leur bien. di leen xoqatal di leen tiital di leen saaga du mujj fen foofu nag toor yi dama naan ci ñëpp la ndax d'abord may mën au moins au moins tey bu ñu ko doon defal historique porte na plainte identifié na kenn ci ñu koy saaga mu porte plainte cybercriminalité ba ñu jàppoon ko xaw ma ndax yéen nga koy fàttaliku. ba njabootu kooku ñëw jéggalu. Mm-hmm. même le gars en personne ñëw na fi baalu. aussi ñëw baalo ñu bàyyi moom mu bàyyi mu sedd parce que aussi nit la mm-hmm. yaay la. c'est un être humain du tëj lu doomu jàmbur ci ay yoo xamante ne xëy na nit ki bu mu koy def àndut ak sago donc sago googu moo war a dellu si dans l'espace public ñu xam ne fii kenn du fi noonu kenn. kenn faralu fi kenn kenn contre fi kenn journalisme du ànd ak Déthié contre Ousmane du ànd ak euh, nu mu contre Massamba journalisme bi dafay def liggéeyam ñoom ñi xëccoo kujje politique bi ku ne dafa am foofu féete ñi dañoo féete ci nguur ñi féete ci kujje bëgg nguur ñi ne ci nguur bëgg a seen nguur loolu dong la donc journaliste bi amul pour tànn pour ne man diw lay faral diw ci combat lay àndal damay ci combat lay engagé dem nañ Sénégal ba dañuy xaajale journalistes yi. Mm-hmm. les vrais et les bons journalistes d'un côté ak la la poubelle de l'autre côté ñu gis ni depuis trois quatre ans presse bi dafay am ay agressions venant de personnes identifiées. xam nga boobu sax mooy bi gën au moins dëgg nañ xam ni diw moom ma identifié mhm. tey bu policier doore journaliste ñëpp xam nañ ni police la bu ñuy kaas dañuy xam ne waa police la ministre de l'intérieur nangam ak am ñu kaas mhm. bu dee gendarmerie pareil bu dee dañoo dagg signal di nga xam ne état moo dagg signal état moo ko mais lii moo danger li dangereux mooy li am nii maanaam mu nekk quelque chose de diffus tas ci biir askan wi te xamuloo ñan la ñuy xoqatal di di saaga di tiital ba léegi nag ñuy jéem a rey parce que il faut dire les choses agression mooy li ñuy faral di gis bés bu ne ci réew mi nit ñëw nangu sa alal boo bañee bu xoxatal la wala mu xaw laa kii xoos ak yu demee noonu léeg-léeg nag mu am ay mu am fu mu fu mu jëm. mais loolu agression mais lii buñ ko xoolaatee bu baax koo ñëw fëgg ko jigéen nga fëgg ko ci bopp jël paaka jamoo ko benn yoon jam ko ñetti yoon. kooku da nga ko bëggoon na faat. Mm-hmm. sa ça la vérité. buñ ñu raay raayal mbir mi. Mm-hmm. dafa am préméditation. kooku nga taxaw di ko xaar. donc nga prémédité. Mm-hmm. yor sa yor sa arme. mooy assassinat la tentative d'assassinat la. noonu rek nañ ko mën a tuddee. léegi nag laka la def première interpellation bi man état laay njëkk a parce que état mooy li ñu muur ñun ñëpp na fexe ak ay services ci nu mu gën a gaawee ki def lii ñu teg ko loxo bu ñu ko tegee loxo rek li ci des yëpp dina leer. dina xam ndax acte isolé la ndax acte prémédité la commandité yooyu yëpp il faut ñu teg loxo ci ki ko def. Mhm.